Je me le matin, 7 h je trouve que ma mère m'a appelé 10 fois, 17 fois. Bon, elle était à Bourg, elle me dit, fais que mon bourre, madame, à Bourg, on a mm. discuté, on s'est parlé et mm. tout. Mm. On s'est expliqué. Maintenant, au moment du retour, qu'elle qu'il a donné à Alassane Sambou. Ah, les, non ah, non bon Alassane je lui ai juste dit le n'ai pas apprécié mhm. la teneur du du communiqué n'ai mhm. pas apprécié le fait que le communiqué ait été fait sans moi communiqué dérangé communiqué deux choses mhm. dérapage de Bachir Fofana donc on qualifie après dans le communiqué ses propos d'une extrême gravité n'engagent que son auteur donc c'est les deux choses. Mm-hmm. bon l'un lu ma déranger tamit te moi naa leen ko. n'ai mm-hmm. pas j'ai problème pour le dire. Mm-hmm. en public j'aurais aimé. que vous partiez de mes excuses pour faire votre communiqué. pour montrer au moins dans la séquence dans la temporalité dans que qu'il y a eu. Euh, voilà mais a a amu Et bon euh, il a reconnu. il s'est excusé. pas à la ça, que bon j'avoue que voilà c'est dans c'est fait dans la précipitation et tout bon voilà et tout maintenant on a un problème. Mm. moi je passe les l'éponge. Mm. c'est oublié. mais bon malgré que c'est oublié da ngay wax parce que comme on dit chaque situation dans ces jang lo xamné bu dans bu ñëwé nan la nan la war a wala nan nga ko wara défé donc c'était c'était ça. Ah, mais mais mais mais depuis lors euh, euh, Bachir. Mhm. ñu légui né euh, euh, tu as eu ta séance d'explication avec le général Tin. Euh, tu as eu aussi, non, je rappelle que tu es un chroniqueur récurrent. De, non, permanent. Permanent, mm-hmm. voilà, donc de, de, tu immédiat. Mm -hmm. nga aussi ak kilifa yi mm-hmm. Mm-hmm. mais tu ngi fay des la Wow, non. parce que xam depuis depuis lors c'était la fin du Ramadan. semaine bi les émissions doivent reprendre demain lundi. Mhm. Donc, on reprend lundi. D'accord. Voilà, on reprend les émissions parce qu'il n'y avait pas de, euh, de RSA. Mhm. Moi, il n'y avait pas de, de truc, le règle. Mais euh, beaucoup ont pensé que non, c'est parce qu'il a quitté le mhm. groupe. Non, non, non, non. non. C'est-à-dire que. Mon mm -hmm. euh, après, après tu passes après, à autre chose. D'accord. Voilà, où tu as été à Walfadjiri, amna moment yo xamné amna le nakari wax nga ko mu mu voilà ça ne veut pas Là, dire que, à TFM voilà à TFM oui, oui donc absolument alors voilà c'est le cours normal voilà, des choses. c'est le cours normal des choses parce que quand des gens collaborent mm. ensemble. il y a des moments voilà on gère ça entre gens responsables. voilà et ça a été aussi également pour moi une occasion de comprendre que Nek était bon. Voilà, ils tiennent vraiment à ce que la collaboration continue. Mm, mm. Parce que mais Mamoudou Ibrakan, qui n'est plus actif dans la gestion du groupe, m'a appelé pour me dire petit frère, on tient à ce que tu continues mm. c'est important. ce sont des choses inhérentes euh, à la vie. Euh, euh, média parce que kuy wax mais oui. aussi comme nous l'avons wax euh, c'est pas pour les euh, dédouaner mais coow bu jógee surtout contexte bi ñu ne mhm. nga xam c'est tendu mhm. bu coow mhm. euh, dans le feu de l'action mën nañuy xalaat def dara te yoo xam ne après le recul dans yow déjà ça tu da fa créer benn jurisprudence dans la mesure où bu subaa bu leneen xewaatee ñoom dinañ xam naka lañu ñuy réagir parce que Sidy Lamine Niass mi nga xamné ne euh, je lui dois tout et euh, énormément li ma mëna wax ak li ma mënul wax Mhm. daf ñu jàngal ñun ñii ñëpp te ñun loolu la ñuy doxee ba fii. Mhm. daf ñu jàngal ñun ñii ñëpp ne bu weesoo sax ce qui n'était pas un journaliste soxla ñu mhm. koy wax. Euh, daf ñu jàngal ñun ñëpp ne si gestion. rawatina nag ci euh, lu mel ne média. nga xam ne kiy wax forcément li muy wax am na ku mu neexul. ku mu neexul forcément dina réagir. léegi yow mi yor këru waxkat. muy këru taskatukaay xibaar. Euh, ñuy wax di rëlaate ay faits di jox ay opinions. Mhm. du matin au soir tu te crées des ennemis. léegi nag yow boo mënulee renforcer boo mënulee dooleel. Mhm. ñooñu di nga xam seen liggéey mooy wax seen xalaat ak relater ay faits. Mhm. yow mi patron bi sàq euh, euh, créé lool boo ko mënulee dooleel. nga tëj sa entreprise. si li mu doon def mooy bu. coow amee bu ko kenn woowee mhm. ne ko Aïssatou Diop Fall dégg nga li mu wax wax na ma lii wala wax na ma laa mhm. yàlla xam na ne dans quatre-vingt-dix-neuf pour cent des cas mhm. seeni déggul la ñu wax seetaanu ko xamu ko mais immédiatement danaan non moom bu ko waxee dafa am compte baax am na fu mu ko teg ñoom ay journaliste la ñu jàngalo ñu Aïssatou elle très responsable nii nangam day défendre d'abord ba pare ba pare defal kële. Mhm. bu kee mënaasee nag yàq wax ji moom mu mu yàqaal wax ji défendre. Mhm. Mhm. bu paree yëpp a pare. dina la woo ne la. loo wax yow la la sànq loo wax kee. ndax diwkat woo na ma nee na ma lii loo wax. nga wax ko naan mu ne indil ma loolu. bu dégloo pare ne la yaa juum. yaa tooñ. lii nga wax waroo ko wax. dinaa la bàyyi tey protéger la mhm. mais beneen yoon boo ko defee dinaa la sanctionné sanctionné à l'interne kenn du yëg mhm. parce que kenn du affré kenn du fragiliser sa bopp Sidi bu la sanctionné boo defee loo warta def ñu mhm. mu lay sanctionné ñun ba loolu man mii à l'époque ba may diriger Walfadjri am na ñu bëri ñoo xam ne sanctionné nañ leen euh, te fekk day dafa am lu ñu def ñu jot ko euh, vérifier ko mu nekk effectivement ñoom journaliste yo ñoo tooñ

Euh, ñun suñu métier métier à risque la. non mais c' est waaw donc kii wax nag mooy juum. c' est que waaye waaye ku juum. Mhm. ba ne juum naa. Mhm. kooku wax jeex na. mais comme ni ma wax rek. Euh, feu de l' ak contexte bu ñu nekk la. léegi waaw. xam nga loolu aussi da ngay da ngay xam ni Aïssatou noonu la mënoon demee. Mhm. parce que xam nga tey jii nii am na ñoo xam ne dañu jonkoon di xaar fu ay Aïssatou di fa xasalu. chaque jour kay. voilà donc boo fekk solo te comme ni ma wax rek yow ba fi nee ba tey. Euh, c'est la première nga am man maa njëkk a teg. voilà maa ah, man boo keneen suba keneen teggi. loolu la moo euh, ah, coow li may la xam nga dafa am carte gaana gi dafa am ku koy teggi rek boo ko teggee rek yow sa sow la ñuy kii après bu kiiwee mu jàll. voilà sant yàlla ba. Euh, voilà li tax ma Bachir keroog ba ma looy loolu laa la dama la ne. Uh-huh. Uh-huh. li nga sante yàlla mooy. Mm-hmm. Euh, yi fi xew dalu la. dëgg la. mooy euh, defoo fi loo xam ne flagrant de lu nit daf gémmiñ naan la nga def. waaw. loolu dafa sant yàlla. dafa sant yàlla. waaw li ci des oh. nag on passe à autre chose. tu passes tu passes. Mm-hmm. nag émission bi li presque jeex na bu yàgg waaye dama jël sàcc rek Dominique nga may ma ñu ñëw ci actualité ñu sàcc mm-hmm. benn cinq 10 minutes. mooy tey euh, actualité bi. Mhm. actualité bi moom ñaar dong la euh, Bassirou Faye euh, Bassirou Diomaye Faye sama xarit. Mhm. defe naa woo na la de. déedéet woowu ma. ah da lay dosé. waaw dafay dosé nit day moytu tamit day daw coow nag. da lay dosé waaye dina la day day daw coow nag eh, ña xam nga man damaa neexul la bëgg. waa ah, te te te ñamu ànd moom moom mu ci bëgg ndeysaan waaw ah, daf te dafa bëgg koo xam ne ku naqaree bëgg waaw ah, ñu nangu ko waaye la am solo mooy mm-hmm. man xam naa moom xam na yàlla xam na la yàlla xam na loolu mooy essentiel bi léegi donc président bébé noonu laa koy tuddee mm-hmm. Bassirou Diomaye Faye mm-hmm. jekk sikkim jekk sikkim jekk si jekk si kim jekk sañ sa tey do tey lool xam nga nag yaa ngi ma dugal nag sama sama registre parce que moom boo fa duggee na ndax ndax sama élément la boo ci bas rek non mais ah, moom damay taañaañal xàppati ko wax la ma saf. non non xam nga xam nga xam nga en fait euh, nit ñi dañ dul xam est-ce que xam nga ni président Diomaye mm. lu mu dund Cap Manuel mook sama jarbaat ñoo ko dundandoo. ndeysaan loolu xaw ma ko mook sama jarbaat ñoo ko dundandoo. Mm-hmm. bu ma daan dem Cap Manuel di seet sama jarbaat dama daan ñëw di wax ak moom nii mm. Bassirou Diomaye toog nii Cheikh mm. Oumar Diagne toog nii. Mm-hmm. may wax ak kii. di wax ak kii. waaw ñoom ñoo doon nekk ci parloir bi. ci parloir ñoom. donc noonu lañ doon waxtaanee. donc c'est pour vous dire que yàlla moo xam lu muy def. te yàlla mooy fal. te yàlla xam nga man ay surtout novembre mille vingt deux. Mhm. laa def post Facebook. Mhm. bind ne Gàmbi Yaya Jammeh dafa topp Ousseynou Darbo. Mhm. di ko tongal di ko bundu xatal ba. tej ko foog ni du nek candidat Adama baro jaar ci ginnaw don président de la république ma tek ci moytu len scénario gambien mu am Sénégal novembre 2022 ba ma ko defee photo Bassirou Diomaye la tek ak bu Ousmane Sonko gay yi tàkkar wallahi da nga soxor da nga ñoo ki on a qu'un plan il s'appelle Ousmane Sonko may len hey li moy li ma xalaat mm-hmm. te gis nga ni ma ko waxee noonu la amee ce pouvoir a mis tellement de temps à se consacrer sur Sonko qu'il a oublié Diomaye. exactement et Diomaye est devenu président. te ba ma wax. ñuko don ñuko ñu wala ñuko ñëmé won woon xalaat bëriwul. Ah, bu ngi xalaatee dama ñu ko wax bëriwul. bëriwul donc c'est pour dire que. Mm. yàlla mooy fale. Mm. Yalla mo né Bassirou Diomaye moy wuutu Macky Sall. Mm. te ba Yalla namé Bassirou Diomaye wuutu Macky Sall daf ko làq ba. voilà ba jusqu'au bout. jusqu'au bout. Mm-hmm. parce que fañ ko dugaloon. làq ko la xëy na bu nekkoon ci mbedd mi. Mm-hmm. xëy na dina wax lu ko sénégalais yi xeebe. Mm-hmm. dëgg la. bu nekkoon ci mbedd mi. xëy na mu wax lu ko sénégalais yi xeebe.